moo indi kaamil bi macha allah ni Cheikhul Khadim bëggee woon kaamil ak digganteem ak moom mm-hmm. moo ko jël mm-hmm. jox ko hadiya sëriñ Gana Messeré macha allah ne bu yoroon ay milliards dina ko ko jox mm-hmm. kii nuur daaray ni la leerug ñaari kër yi tama yàddina ma doo ko bind nee na moo la ko jox macha allah. kaamil bi moom dara du teg ci kaw. Ah, waaw kay gi noonu. <laughs> sëñ Gana du Modou Mbacke Baara Doli nee na jox na la addiyee Cheikhul Khadim bi yëpp màkk. suba ak jàmm dinaa ko jëli euh, sama doom Mouhamed Sylla itam nee na jox na la 15 mètres jasneer fële ca Pape Mbaye étranger boobu itam léegi dinaa la jox numéro bi su ma jógee kam ko waxoon barki démb jot na ba sax jërëjëf Mouhamed Sylla yal na yàlla fay la macha allah Modou Bara Doly yal na yàlla fay leen macha allah laaj Pape léegi euh, ñu ñu àggali Modou Ndiaye defe naa internet yi itam ñu ngi réagir depuis cinq te bëgg nañ ci boole ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp après ñu tour de table itam mhm. euh, ku ne sànni ci ay kàddu pareeguñu laaj Pape nga téye foofu rek ñu ñu foofu balaa balaa parce que euh, histoire bi xam nga dañ ko dañ ko toftal ah. dañ koy toftal comme que sëriñ baa ngi gànnaar mhm. naar yi mu nekkaloon ak ak yam fa def wala weer yam fa def mhm. kon naar yi am nañu gëm am nañu mhm. gëmul wala am nañu gëm gëmul wala ñu gëm la ñu seeni ci sëriñ bi bind ko loolu it bëgg nañu sëriñ bi wax ñu ko avant mu ñëw njaareem insha allah taala ba keroog ba naar raay fa mu toogoon lu jubóog ne ñu def ko mhm. tey daal euh, <laughs> ñun yàlla nañu yàlla fayal Serigne Touba euh, internet yaa ngi réagir depuis sànq Mamadou Ndiaye effectivement Pape Cheikh internet yi actuellement comme ni li ñu koy waxee médiamétrie bu amoon euh, jël nañu battre nañu actuellement internet bi mi ngi toj moom mi ngi ko mën a waxee ñëpp a ngi réagir mm. live yi ñu ngi koy partagé suñu page Facebook bi arobase Télé Futurs Médias surtout ak suñu sit internet bi www.igfm.sn réaction yi bari na mais toujours ñu ngi suivre logique bu desee tuuti rek après nañ ñëw ci ni mu gën a gàttee internet yi au delà de commentaires yi ñaanal yi ñi nga xam ci ñaan ku ci nekk di fesal ni nga bëggee Serigne ak ni nga bëggee Sénégal mhm. après nañ ci ñëw rek ci ñetti question réponse yi nga xamante ni euh, duggaguñ ci peut-être après internet yi nañ ko nañ ci ñëwaat voilà mu ngoog donc loolu euh, am na euh, solo réaction yaa ngi jóge fu ne bijou mhm. donc Pape Cheikh di remercier rek Serigne Gana Massala ndaxte yaakaar naa ni yàgg nañ dégg ay waxtaan ci Xaadimu euh, Rasul euh, waaye bu mel nii moom macha allah parce que détails yi nga xamante ne moom moo nekk ci biir euh, histoire bi dañ koy dégg mais dugg bi ci biir nii nga xamante ne finalement ñun sax bëggatuñu poser question dañu bëgg a noppi rek di la di la déglu nga déroulé franchement jërëjëf ñi fi joxe àdd yi xam naa ni bu ñu amoon lu toll noonu tamit tey dinañ ko joxe jërëjëf ci waxtaan waaw Mado loolu ngay wax ba sànq naan correct ba pare civilisé moo daal gànn na sere wallaay macha allah Pape a baax taataan moom gëm naa ni dina gën a tax ñu gën a fonk ki nga xamante ne moom moo di maam borom Touba ak képp koo xamante ne daal da ngay wax ci li nga xamante ne moom moo jëm ci Serigne Touba kon yàlla nga yokku. képp sama Serigne Fall. <laughs> dëgg la Pape Cheikh ah, euh, waxtaan yu demee nii moom euh, bu buñ koy boo koy déglu rek da ngay da ngay déglu religieusement euh, ndax itam nag nga mën cee gën a jàng ndax tey waxtaan wu demee nii moom yaakaar naa ne ñëpp a ngi ci jëlee enseignement may man lenn rek laa bëggoon. ci gàttal ci dimension soxna jaara Bousso mi nga xamante ne moom yaakaar naa ne am na xool bu am solo boo xam ne euh, joué na ko ba tax rek euh, li xew lu lu mu ci doon soxna jaara laa bëggoon rek mu ñëwul. mu ñëw ci incha allah soxna jaara loolu itam ponk bu am solo la ay satu. Euh, waxtaan bi am na solo waxtaan bi rich na euh, liñ fi jàng yëpp euh, defe naa ne war nañu sax dem ba mun ko jàngal ndaw ñi ci biir l'école yi ci wàllum valeur ci wàllum vertu ci wàllum gëm-gëm ak ci wàllum gëm sa bopp ak gëdd gi nga xamante ne jox nañ ko diine gi ñu lay gërëm di sant man sama wax du si bëri lu dul rek. déglu rek déglu ni ko képp si waxee religieusement. Mhm. ndaxte lépp jàngat la. ak mhm. loo xamante ne lu ñuy yokk kese la. voilà dañuy may nag euh, benn téléspectateur mu dugg quand ndax ci ngeen bokk. Mhm. Euh, ki njëkk a nekk ci ligne bi euh, ci barkeb Serigne Touba nañu ko dugal bu ko defee mu mën a participer loolu itam defe naa kii mu nar a dal wër sa gëm la laata Mamadou Mamet Ndiaye di jël kàddu gi. ñuy gërëm itam euh, Thiat traiteur moom itam indi na fi ay bernde ba ñu commencé euh, quartier général bi ba tey mu ngi ñuy indi la main d'or donc Thiat itam dib taalibe Serigne Bamba ñu ngi koy gërëm bu baax euh, merci ci collaboration bi ci quartier général di gërëm tamit sunu sponsor yëpp ndax ñoom it lii Adja Degen Chimère wax ñoom ñoo jàpp ci combat émission bi le grâce à vous téléspectateur émission bi nekk number one waaye grâce au sponsor itam defe na fësal anamee ci euh, seenug lim euh, diggante Orange euh, Ecobank Déco pour ne citer ko ñooñu daañu ñëw bu ca kanamee tuuti ci gërëm yi ñu leen bëgg gërëm tey ci quartier général bi 3h34 du matin mooy doog a jot et pourtant tàmbalee guñu bu ñu jàllaatee ci sëñ Gana Messere itam du ñu arrêté dañuy jël yoon wi rek dem donc ñu jël benn téléspectateur allo. allo asalaamaaleykum. aleykum salaam. ah ñoo leen di siyaare ab ngi delloo si ak kooku. kii ñu ngi koy wax Eli Eli Ibrahim Ndiaye. Ndiaye fooy wootee. gin gi neew. naka waa gin gi neew. foo dëkkee foofu ca gin gi neew. quartier Kanel. quartier. Kanel Kanel Kanel d' accord ñu ngi lay déglu. voilà bon di leen ndokkeel. Mhm. di jaay sëriñ bi. Mhm. wax lu fa yëpp rafet na ñu ngi koy déglu bu baax a baax. Mhm. ñaanal mboolem càpp téefam ci Sëriñ Tuubaa moo ko xam mhm. yàlla yàlla fu lañu ko fu lañu ko fu lañu ko jox ko am kawe njortam amin amin wax ji mu def na rafet na te ba mu boppam dafa ma def macha allah waaw ah. d'accord vraiment dama leen di suivre daal dama leen di suivre vraiment tous les jours li mhm. ngeen fi invité ak li ngeen wax yëpp am importance surtout aussi koor gi ngeen ñuy accompagner jërëjëf nga ni nan Ndiaye Ali Ndiaye. Eli Eli Eli Eli. waaw. waaw am na ventilateur. may naa la ko addiya Serigne Touba. tegal naa la ci télé. Euh, bu jógee Jumia. tegal naa la ci piis boo korité bu jógee sant yàlla boutique. tegal naa la ci benn cinquante mille ak beneen cinquante mille muy cent mille yow rek yaa ko moom. waaw li fi nekk daal defe naa dama koy def la total jox la ko benn ventilateur benn téléviseur benn pièce benn panier sax dama ko ciy teg ak ñaari enveloppe yoo xam ne bu ñu def na ñaar fukki junni bu ne def na safar la fukki junni muy ñaar fukki junni. vraiment kontaan naa kontaan bu baax. bul raccroché ci ginnaaw comme ça ñu jël euh, ñu jël sa ñu jël sa numéro téléphone. d'accord voilà donc ventilateur bi ak télé bi maa ngi ko jëlee Jumia Jumia ñu leen di gërëm bu baax euh, application bi euh, mën ngeen ko télécharger pour jënd ay euh, télé ak ñoom seen et puis mën ngeen dem ci seen site internet muy www.jumia.sn coalition delloo Gana quartier général xanaa loolu mooy Gana Messere chaque jour ki <laughs> Babacar Fall la ko wax bu RFM ñu koy ndokkeel moom itam bu baax ndax ci taalibe yi la bokk xam naa ni fa mu nekk bég na Ami Galaslo di itam suñu yaay moom it nee na kontaan na lool nee na Abdoulaye Diagne euh, di doom ci moom joxe na dix mètres euh, euh, dix mètres basin Sénégal broderie moom nag taalibe borom daaru la ñu ngi koy ndokkeel bu baax di nuyuwaat suñu yeneen xarit yoo xamante ne ñu ngi àndandoo ak ñun tey ci quartier général bi bu keneen duggee itam ñu jël ko bu ko defee ñu mën ko def addiya Baay Faal yeeg Yaay Faal yu yu yu télévision Futur ñu ngi leen di gërëm di nga ñu bàyyi mami xaritu Cheikhul Khadim euh, donc euh, Cheikh Faye euh, bu service digital moom ab Baye Fall la Euh, ñu ngi koy ndokkeel bu baax maam Asta sama collègue euh, merci ak kull kuy taalibe murit nekk fii ci groupe Futur euh, Média am na itam yeneen yóbbante yoo xamante ni ba tey ñu ngi yegg si Mohamed Samb soldaaru defe naa soldaaru Bambala de Cissé moom joxe jox na Mor Gueye deux cent cinquante mille addiya pour ki nga xam ne ni moo di Gana Messere donc kontaan nañ ci lool Pape Jean nekk service digital bu télévision Futur Média moom it bëgg na Aba no stress nee na guddi gi ci barke bi mu am mu ngi ñaan ñu ñaanal ko ci guddeem googu muy wàcc euh, la nga xamee ni moo di euh, grand théâtre boo ci amul ndam kenn du ci am ndam euh, suma rakk jooju donc moom it ñu ngi koy ndokkeel ci yóbbante bi nga xamee ni yóbbante na ko léegi nii ci quartier général bi mami am nga beneen yóbbante bu yegg si léegi nii ci at yi nga xamante ni sànq ba tey ñu ngi koy recevoir macha allah. bi Mbàkke bu Daaru Musti hmm. nee na jox na sëñ Gànne Masere 10 mètres jasneer ak terrain la ca Daaru Musti Mouhamed Bara Gaye di responsable politique fële ca Touba moom it nee na jox na la cent mille francs man nag lu ci waaye di wax rek na gaaw dugg ndax damaa bëgg bu subaa ma gisee sëñ Gana wala muy dem ci soxna sa Mbacke Balays moo gën promesse de don Oustaz Abdoulahad Ndiir mhm. Daaru Salaam euh, bâtiment nee na jox na ñaari terrain uh-huh. euh, ca Lac Euh, benn bi Serigne Ganna benn bi sëriñ Khadim Kebe. macha allah waaw man xaw ma waaj ah. Mado moo ko moo ko xam waaw. ah xamoo daf ma yónnee message rek ma ah, Daaru Salaam bâtiment yaa ma wax. <laughs> waaw moom dina ko def incha allahu taala comme wax naa ko en direct. waaw mu ngi noonu nee na joxe na ñaari terrain. macha allah benn bi Serigne Ganna la ko jox benn bi Serigne Khadim Kebe ah. macha allah kon ñoom itam ñu ngi leen di gërëm bu baax euh, euh, surtout borom Daaru di ministre El Hadj Ibrahima Sall. Euh, directeur général bu SICAP moom ku ne xam na ni sët ci njaboot gi la bokk euh, sët la la ca maam sët da koy jël euh, donte ministre la ñu ngi koy ndokkeel moom nee na joxe na addiya bu toll ci téeméeri junni cinq cent mille yu mu jox ki xam ne ni mooy sëñ Xaadim Kébé loolu ñu ngi ciy gërëm bu baax monsieur le ministre di ndokkeel tey ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér soxna Bali Muntaxa di yaay ci ñun ñëpp moom dafa bokk ci télévision Futur Média dafa bokk ci groupe bi euh, donc soxna Bali Muntaxa ñu ngi ñaan mu yàgg fi moom it nee na bëgg na lool moom ak waa Nuurul Daaray ni yëpp euh, képp ku bokk ci njabootam ak ñun waa soppay soxna Bali euh, na lool <laughs> waaw waaw soxna Bali xam nga mooy yaay taalibe yi macha allah soxna Bali mooy yaay taalibe yi mm. ñun waa soppay soxna Bali yëpp mm-hmm. kenn amul fayam moom ah, parce que ñun ñoo bokk groupe ñoo dañu am panel bu tudd soppay soxna Bali Muntaxa soxna Bali macha Ba Mhm. waaw Serigne Khadim Awa Ba. Mhm. Euh, moom sët la waaw sëñ Bass Khadim Awa Ba waaw sëñ Bass Khadim Awa Ba fi mu ne boobu ba fees euh, dama bëggoon ñu jël ko téléphone oui après après ñun ñëpp dinañ ci bokk kay fii ba 7 heures du matin mën nañu fee xëddee euh, salaata bi bu ñu fi fekkee itam ñu àggali ko rek bu ñu ma bu ma joxee autorisation boobu ci ginnaaw ah waxal ak Sophie kon xëdd bi ah. ndax mënumaa karmbat démb di karmbat tey xëdd bi day nekk ndax Fatimé Ndour sama xaritu xol bi nga xam ne dama ko bëgg ngir jëmmi Cheikhul Khadim moom dama naan Fami Ndour ba Fami Ndour daj maa bëgg Fatou Kiné ngir jëmmi Cheikhul Khadim mu def teraanga ji mu def daaw defaat ko ren ba mu xëyee ba tey génnul waañ ngir bëgg a teral sëriñ Gana Messere maasaallah na kon ñu jël euh, sëriñ Khadim euh, sëriñ Bass Khadim Awa Ba Euh, sang bi ñu ngi lay euh, euh, nuyu di la ziar balaa ngay dem ñu ndokkeel bu baax Serigne Khadim Fall Ndar nee na joxe na yu am solo ñu ngi ko ci ndokkeel ñoo toll ci 4 millions pour Gana Messere Serigne Khadim Fall Isbu Tarxiya moom itam yóbbante na sama rakk Cheikh nee na bég na donc Serigne Bass ñu ngi lay ziar bu baax. xam naa ni bëgg nga de gis nga de gis nga de ñun ni ñuy ni ñuy xëccoowee sa maam. ah moom day sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sa. di bëgg di kontaan di am xol bu sedd. Mm-hmm. ak xel mu dal ak yaakaar ju gën a dolli ko ci réew mi. Mm-hmm. Eh, di nuyu mbooleem mbokk yi toog foofu. ñu ngi lay fay balay sa. di nuyu kilifa yi ostaas yi sëriñ si ak eh, ki nga xam ne moo fi nekk muy sëriñ Gana Messere. di nuyu Oustaz Pape Anne. Mm-hmm. di nuyu sëñ Mamor di nuyu sëriñ Mouhamadou Mouhamed Ndiaye moom nga xam ne taaliba sëriñ Saliou la. Mm-hmm. di la nuyu yow mi nga xam ni soppeeku sëriñ Fallou nga. jërëjëf balay sa. di bëgg di kontaan di nuyu sunu jigéen bi toog foofu muy soxna ma mi ak mboolem mbokk mi jigéen yooyu mu toogal. jërëjëf. di rafetlu fa tabarakallahu seen jataay boobu. jërëjëf balay sa. Eh, weeru koor nag jàpp naa ni bu. buñ ko dee wax. Mhm. jataay yu mel nii moo tax ñu di ko wax. Mhm. ndax weer wi day weer wi nga xamante ne sii nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na awaluhu rahma. Mhm. wa awsatuhu maxfira. wa axiruhu atqun minan naar. Mm. fukki fan yu njëkk yi yërmande la. fukki fan yi ci digg bi jéggal la fukki fan yu mujj yi goreel ca sawara la. kon nag yéen fa tabarak la ba ñu ko tàmbalee le premier ba le ci weeru. koor gi di ko dundale nii. mooy mhm. wane ni yéen fa tabarakallahu bàyyi ngeen xel weer wi tey ak ji nga xam ni ak ngëneel yi ci nekk soxla ngeen ko. ak mhm. ji nga ko war a joxe fa tabarakallahu jox ngeen ko ba mu mat sëkk. jërëjëf Balaye Sow. Sëriñ Gànna nag fa tabarakallahu mhm. dégg nañ suñu xol sedd na. wax ji li muy am am am solo waxtaan wi li muy neex neex ci Sëriñ Tuubaa. yar bi moo ko ëpp solo. ndax dañuy wax ne ilmun bila adabin ka shajaratin bila samarin xam-xam lu mu kawe kawe bu ànd ak teggin mm-hmm. moo garab gu war a meññ te du meññ ñoo yem mm-hmm. fa tabarakallahu yar na wax ji masha allah tegginu tege na ci xam-xam mm-hmm. ñu koy sant di ko gërëm loolu mu wax nag ci seexul xadim doy na ci rek ci kan mooy seexul xadim nga ni seex Mouhamadou Lamine Bara di ñetteelu doomam dund quarante cinq ans Mm-hmm. li coow li bari bari bari bari Pape Cheikh Cheikh Mamadou Lamine Bara ñeent fukki at ak juróom la dund. te li mu taalif wax ko ci yonente bi. wax ko ci Serigne tubaa kenn xamul nu mu toll. wallaahi bàllay sa. kon euh, boo tuddee Serigne tubaa ëpp na sax ci ñun. dëgg waaye boo jëlee ci doom tàmbalee ko Cheikh Mouhamadou Moustapha. Mm-hmm. ba ci Cheikh Mouhamadou Mourtada. Mm-hmm. zukuran wa inaasan góor ak jigéen. koo ci làmb day fees dell. Cheikh Mouhamad Lamine Baara moom fi réew mi toll muy xam-xam te Gana Messeré waxee ko tey. Mhm. loolu mooy baax baax yi nga xam ni njabootug Serigne Touba moom lañu fees sa dell. Mhm. te jamono bi nekkatul jamono boo xam ni ay jamono ay def na miracle ak def na lii ak dundal na lii ak rey na leeg def na lii xam-xam ci la lépp war a tege. Mhm. ndax euh, euh, aw askan. waxtu woo xamante ni si ni dem nañ ba xam-xam amatul ci ñoom dara satul ci ñoom. boo jëlee Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mi nga xam 45 ans la dund gën a gàttu fan bokk ci ñi gën a gàttu fan ci njabootu Serigne Touba. Mhm. boo demee ci benn bayitam benn euh, xasidaam gu gàtt gu ñuy wax bu Suraaki ya Arda Touba nga xam ne bi Serigne Touba wàcc ci liggéey la ko taalif. Mhm. ma ngay wax Serigne Touba ni ko yuhibbu ahlu tuqaa. Mhm. ahlul ulumi fala yujaalisu sayxa illa saadatul fudala. mu ni moom Serigne Touba day ñun gënoon a bëgg gën leen sopp yi. ak ñi ragal yàlla. Mhm. te moom sëriñ bi day daawul toogandoo ak jotaayam képp ku texee di daawoo ca bokk. Mhm. loolu boo indee benn baytu sëriñ tubaa fu muy waxee ni ulaayika al xawmu ci xuqal bukaaw naan mhm. ulaayika al xawmu laa yasxaa jalisuhumu is yaksibuuna al muridina saadaati nee na gaa yu baax yooyu day kenn képp koo xam ne dangaa nar a texee di doo toogandoo ak ñoom te waxtu wu seen taalibe yi tëddee di nelaw na nga leen di faggul seen texe àdduna ak alaaxira kooku mooy Cheikh Amadou Bamba Xaadimu weer wi nga xamante ne si ni ci la alxuraan wàcc. li ci Serigne Touba wax. wax ko ci alquran wax ne naajaani yal munzilu bil qurani xatta gadawtu mawrida samaani dellu wax ni inna tilawata wa salaata ala nabi wa sanaahu kanzi allazi laa yanfadu nee na jàng alquran ak julli ci yonente bi salaam salaam mooy mand xew li nga xam ne yàlla jox na ko te du jeex mukk boo jàngatee loolu da nga dégg Cheikh Mamadou Lamine Bara di wax ni xadayta nii yaa haadiyan allamta رأيتني كأسستها ربيتني علمتني يا ربي من لدنك علما يقينا أذا والشكا علم لدني googu nag mooy li ma ci gën a intéressé te yàlla moom la joxoon Seydina Xadar keroog bi nga xamante ni si ni yonent yàlla Moussa wóolu na boppam ci science déyante yi nga xam ni ngi ko déyanteeg sunu borom mm-hmm. ba jàpp ne amatul benn jaam bu nekk ci kaw suuf buy tolloog moom daraja yàlla da ko yebal ci majmahul bahrayn ni ko fawjada fawjada abdan aataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunnaa ilman boo fa demee da nga fekk sama jàmm boo xam dana la xamal ilmu ladunnii. jërëjëf Baye ilmu ladunnii googu ma àggale rek Pape Cheikh deux minutes rek. ma àggale ayca ayca Balla sa. ilmu ladunnii googu. nga xam ni yonent yàlla Moussa yàlla nëbboon na ko te mu ngi bokk ci ulul azmi. Mhm. ulul azmi boo koy jàng mooy wa iz axadnaa mina nabiyyiina miisaaqahum. Mhm. wa minka wa min Nuuhin wa Ibraahiima wa Moussa wa Iisaa ñoom ñooy ulul azmi. Mhm. te ulul azmi googu yonent yàlla Moussa mi ci bokk ilmu ladunnii googu suñu borom nëbboon na ko ko Cheikh Mamadou Lamine Bara di doomi Serigne Touba bu ne mm-hmm. yàlla moo ma xamal añ mu la dund kon day wane ni Serigne Gana Messeré fi mu tàmbalee ci Serigne Touba fi mu jaar mm-hmm. jaare ko jeewal dem Saint-Louis jóge fa dem ñëw Ndakaaru continué mm-hmm. dem Conakry dem Grand Bassam continué dem ba euh, euh, ak Gabon euh, ci ay kiimtaan ak ay xéewal day wane ni Serigne Touba jeexalu dara jërëjëf sëñ Bass kon fa tabarakalaaw ñu ngi koy sant di ko gërëm jërëjëf Balla ñaan bëgg nañ ci moom kontaan nañ ci moom ndax njabootu Serigne Touba lii lañ leen xamee. jërëjëf Serigne Touba weesu na ay nag wa nangam ay béy wa nangam ay li Serigne Touba li soxla mooy xam-xam. ndax xam-xam mooy dundal aw askan. Uh-huh. xam-xam bu ñu ko tegee mbir mi ci xam-xam rek. Mm-hmm. comme nii mu ko defee nii Serigne Touba kenn. ku dem bu wax ku dem bu wax ni tawaafu kulli man alayya ankara hmm. indal ilahi wa nabi lan yuskara képp koo xamante ne si wedd nga ma boo demee ca Kaaba ga di wër rasulullahi du la nangul sunu borom du la nangul macha allah ku wax ni wajhu alladi yuhibbu ni yabyaddu yow ma wujuhu sahada wa tabyaddu bépp xar kanam bu ma sopp hmm. boo léegi yowmal xiyaam day mel ni xar kanam yi nga xam ne ñoo àndoon ak yonente bi xara ci lislaam ba rey leen hmm. te alquran wax ne wa amma alladina byaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum see xaalijuna maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li duuf ci nag bi xaju ci indi maa ngi ñaanal ki nga xam ni mooy borom télévision bi di Youssou Ndour mhm. yàlla jàppale ko amiin sàmm ko gën ko taxaw amiin balay lii ngeen di def nag àdduna bépp mu leen ci rey bu doon loo xam ne du lu baax wala kenn nawu ko wala kenn rafetlu ko kenn du leen ci rey waaye ndokk yàlla bi nga xamante ne lu baax la taalibu Serigne Touba def ko ànd ak ay rakam bu maa ngi lu nuyu buuba di ko sant di ko gërëm di nuyu njaga mi nga xam sama wëllëree sama xarit ñëpp xam sama diggante moom di yi nga xamante ni fépp fu ñuy dégg télévision ci àdduna jërëjëf jërëjëf Balaye sa bëgg nañu lool bëgg nañu lool yàlla na sa taxawaay yàgg yow it euh, ku ne xam na sa diggante ak euh, télévision Futur Média waaye oustaz ku ne xam na diggante télévision Futur Média ak Serigne Gana Messere mii mhm. donc Serigne Gana moom suñu bosa nañ ñu ko mhm. bàyyee euh, te ñu ñaanal ko rek mhm. mu yàgg fi mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax defe naa tey bégal na képp ku àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média ñu ngi woon gànnaar ñu ngi woon gànnaar alaj Pape bu baax Serigne Mouhamed